mobile de ce double meurtre est relatif à l'orientation sexuelle de Dabala, pa na pas Naboulay, qui était en réalité sa petite amie, malgré si ce qu'il à apparaître en public. Il disait ami et Nabouzuré qu'il considérait même comme son père. maanaam tey enquête bi dafa am lu bëri loo xam ne moom lay leeral xam nga lu tax euh, dañoo nekk ci showbiz bu ñu nekkee ci showbiz dafa am loo xam ne link la dafa am loo xam ne ñoom ñooy ànd te dafa am ci lenn laa lay wax ci benn rek. comme man euh, ci benn loo xam ne dinaa la ko jox parfois ay fecckat ci boppam bu ñu nekkee di fecc ñu nekk ci li nga xam ne moo di euh, maanaam di fecc nekk ci benn euh, maanaam benn xew boo feccee ba yegg fenn fi maanaam nit ki mën na laa siif xam nga luy signifie siif mooy ngay fecc yow daanala la am na keneen koo xam ne ñëw na jël te ñooñee yow la ñu gën a àndal foofu jalousie de ciy dugg te beneen bi li mbir yi wax de début à la fin maanaam xamaguñu lan moo ca nekk dëgg mais li wóor ba wóor ba wóor mooy enquête bi bu yaatoo bu demee ba ci biir maanaam yuuxu dina jibee fu ñu ko foogeewul wala nit dina tëj li nga xam ne moo di làmmiñ xam nga ñu bëri ñoo ngi doon jàpp ne ñoom ñaar ñooñee ay xarit lañ ay doomu ndey lañ xam ñu bëri ñoo ngi doon jàpp ne waali ah maanaam jarbaatu diw la au fur et enquête bi ba mu yaatoo ñëpp xam nañ ne waali du jarbaatam ñu bëri ñoo ngi doon jàpp ne ñoom ñaar ñooñee ay xarit lañ boo xoolee tey li enquête bi génne mooy malgré li nga xam ne moom lañ doon woowee ba nabu Leye di waat ne eh, ki nga xam ne moo di Aziz balaa moom moom may xaritam la tey procès verbal ba la mu génne mooy ñoom ñaar ñooñee dañoo nekkoon en relation te loolu nag yàgg na ci li nga xam ne mooy ci réew mi léegi nag nañ taaxiru xaar li nga xam ne leneen mooy ci wàcce mais li ci wóor ba wóor bu ñu xefulee juróom-ñaari nit yi ak li nga xam ne procès verbal bi moom la génnee benn mbir ma fa muy wàcc yuuxu dina jib fuñ ko foogeel beneen bi mooy li nga xam ne moom la ñu demandé moo di mandat de dépôt bu ca laalee mooy jàppal ne ñooñee euh, maanaam euh, euh, caabi da leen di féetee ginnaaw. est-ce que jàpp nga ni lu ëpp ñeneen i nit dinañ leen jàpp lu ëpp lii. bon fii lañ ca mën a yemagum yaakaar naa ne ñu jàpp sept personnes mooy ña ca laalee lañ ca jàppagum mais enquête la nag mën na tijjeeku mais enquête bu ñu téye sept personnes yaakaar naa ne fu ñu demee ba téye ay seex. fu ñu téemee ba téye ndi téye fa ndijaayam fu ñu demee ba téye Nabou lay moom mi nga xam ne moom moomee xaritam lañ doon wax waaye fu ñu demee ba tey ki nga xam ne moom moo ko yóbbu ca kër googu. est mën nga leeral nijaayu kan lañ ci téye. maanaam mën nañ wax ak ki nga xam ne moo di jaaw si boppam bu ñu xoolee moom moomee dañ ko téye ndaxte dafa am leneen loo xam ne moom lañ doon jiiñante mooy au début dañoo jëm ci loo xam ne nit ñu dee man mënumaa yegg ci loolee mooy lëm lañ njëkk a joxañ baaraamu tuuma mooy ñooñee ay boroomi ñaari nangam lañ après dañoo andi li nga xam ne moo di ndijaayam joojee moo andi li nga xam ne maanaam moo ko jox li nga xam ne moo di paaka bi am na foo xam ne enquête la kenn ku ne dañ lay déglu convoqué nañ ma gendarmerie du benn du ñaari yoon si ay mbir bu ñu defee yow dañ lay déglu déglu la mais am na foo xam ne confrontation mooy am confrontation bu amee yow bu ñu dégloo li nga wax déglu li nga wax déglu kii lu mu wax te yéen ñoom yéen ñëpp lañu teg ne leen acca wax leen léegi nag jàppal ne enquête boobee da si bokk ne nit ñi nga xam ne ñoo di enquête xam nañ bu ñu ne ñoom ñoo ñooñee duñu ay xarit déggontewuñu ñu génnee seen numéro téléphone ndaxte enquête bi dem nañ ba ñoom ñëpp dañoo génnee seen numéro téléphone yi diw man daaw di jigal yor naa numéro Wally yor naa seen numéro donc bu buñ ne duñ ay xarit dañ ne yow fan nga jëlee numéro diw yow fan nga jëlee li nga xam ne muy euh, maanaam numéro diw beneen bi bañ ne mbir moomee bokkul enquête bi li mu révélé mooy tey bu ñu xoolee li nga xam ne moo ci génn ko mooy ñoom ñoo ñooñee dañuy xam sa téléphone fin ko mujjee fay te li ñu xoolee maanaam procès bi li mu génne même le téléphone Nabou Leye au moment mbir yi di am téléphone am moo ngi si lieu boobee maanaam téléphone am maanaam moo ngi si lieu moo ngi woon sa béréb ba pour wax la ne aussi dañoo am sens si réew moo xam ne peut-être ku ñu bëggatul jàpp boo xoolee l'affaire de Khassim loo xoolee l'affaire de Pierre Dione à Thiès boo xoolee l'affaire de Binta mooy xale ba dékkoon euh, ca tàmba ñii di def mbir yooyu yëpp ñi leen gën a jege la te leneen loo xam ne lañu ñu seetlu mooy bii mbir yi di am da ngay seetlu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwee ñooy jëf lool dañuy ànd ak seen sang froid maanaam seen xel day dal mais yàlla dimbali nañu ba réew mi di Sénégal ñi nga xam ne mooy suñuy takk der bu buñ la bëggee jàpp dañ lay jàpp xoolal enquête bi que mën a nekk Touba ñu téye ko ka nga xam ne ñëpp yaakaaruñu ne bokku ca te ñu bëri ne bokkuñu ca procès verbal ba dane laalee gum na ca léegi mais mais gis nañu tamit ni collaboration am na ndaxte ku mel na Fallou Diop defe naa baayam moo ko yóbbu wala bokk moo ko kii même ki nekk Touba defe naa ni baayam wala nijaayam moo dem gendarmerie dénoncé ko kon maanaam population bi collaboré na. maanaam maanaam lépp rek du gendarmerie ak police. maanaam il faut être responsable. Mhm. dans un état de droit. réew moo xam ne dañ faa nekk ñëpp dëkk fa. réew moo en fait euh, waa ji euh, kilifam dafa doon responsable parfois di nga yar sa doom fi ko bëgg a yaree di nga def nga bëgg a def. mais sa doom dina def lenn loo xam ne yow neexu la mais li ngay def en tant que kilifa mooy paa nga ne ko dawal ki nga xam ne boobal tey ñu ngi koy wër gisuñu ko mu wat li nga xam ne moo di boppam te jàppal ne waajuram ci boppam waajuram ci boppam moo ko jël jébbal ko tey enquêteurs yi mënu ñoo def seen liggéey ba pare te ñun li nga xam ne ñoo di lay sénégalais bokkuñu si mooy ñoo leen mën a jàppale si lu bëri loolu nag bu ko defee da gën a yomb ay même journaliste yi si la ñu bokk mooy parfois mën nañ wax def enquête xam nga ñu bëri dañ doon jàpp ne jarbaat jarbaat jarbaat mais tey mën nañ jàpp ne grâce ak yenn médias yi dañ nem déglu ji famille bi nga xam ne moo di waali te tuddul waali bi ñu enquêté xam nañ ne kon Aziz ki ñu ne jarbaatam la du jarbaatam pour wax la ne enquête bi kenn ku ne da ci am wàll mais nañ ko ko ci defee mooy nga doon responsable mais tey nga wax li nga xam ne moo la ci woon mais ba fi ñu toll ni procès verbal bi li mu génnee dana ñii ñoo ci laale mais ba tey dañu naan présumé maanaam tey ba tey duñ ne ñoom ñooñee la ndaxte hmm. tant que atteew ñu ba mu wóor nañu ñoom ñooñu tant que atteew ñu xanaa xamoo doguma la xanaa xamoo même enquête yi mën na dem ba si kanam hmm. xam nga sept présumé lañu wax mën nañoo dem ba finalement retrouver trois hmm. ne trois yi ñoo rey après quatre ñu libéré la na ne loolu yëpp mën na ne moo tax mais léegi man li may laaj mooy nii affaire bi wax nga ko te mu passionné que su dul demee ba jàpp ni ñii ñoom ñëpp laale nañ ci wala bokk ñu ëpp ci ñoom laale nañ ci euh, lan la mën a changer diggante relation sénégalais ak sénégalais yaa ngi ko doon junj sànq. xam nga yàlla dafa def ne euh, xaw ma Nabou Leye xaw ma Aziz waaye méttitu laa mbir yi ba fi mu yem mooy si kër Waly kër wa kër Aziz mais man li may ñaan li may ñaan di ko ñaan yàlla su soxna soo see bañ see bokk. xam nga euh, li tax ñu koy wax ji nga bu ca Thierno lay bokkee réew mii di Sénégal kenn dootul gëmati kenn imagine nit ngeen ànd ba dara nekkulee dara ngeen di jugandoo ci aar ngeen nekkandoo tey nit kookee fu mu taxaw yow teg la fa fu mu dem tudd sa tur foo dem nga tudd turam ndax tey ngeen ànd relation bi nga xam ne yéen ñaar ñooñee am ngeen ko tey bu ñu demee ba ne ñaar ñooñee kenn ki ñàkk bakkanam ki nga xam ne mën nañ ko tuddee doomu ndeyam ki nga xam ne tey moom da ko doon woowee pàppam kookee si la bu maanaam bu ca amee jàppal ne di nga si gis maanaam maanaam du bees mais bii même tu as oublié même le cas à Kaolack américain yi goroon seen biir xam nga xam nga xam nga mais relation bi xarito bi maanaam amul si ñoom ñaar ko si doon dékkal micro te doo ko dégg mu tudd li nga xam ne moo di moroomam yéen xam ngeen mbir yi fan lay xew buñ ne Nabou Leye si la bokk en tout cas man de damay ñaan yàlla mu bañ see bokk ndaxte am na ñoo xam ne gëmatuñu réew mi xarit am na am na ñoo xam ne gëm nañ ne réew mi di Sénégal eh, tey relation entre nit ak nit am na mais imaginel bu si ndabu lay bokkee jàppal ne réew mi di Sénégal ñu bëri dinañ ànd ak nit de waaye dinañ am ak moom limite. alors le des meurtres au gis nañ ne mu ngi gën a mu ngi gën a jéggi dayo rawatina atum 2024 la ñuy faat si ay nit ñu fekk leen seen appartement